la ko waroon lépp def na ko laabiri ne ku mu war a laabiri jàngale na lu mu war a jàngale saa bu jëflante fii sabilillahi jotee jëflante na mooy jiitu du ne dem ma ndikk waaye mooy jiitu ñu topp ca moom ba diina ji àgg fii mu àgg waay waay yàlla yàlla na nga ñu def abu bakr ak omar ñooy ñaam yàlla na nga nu boole ci ñi nga xam ne lii mu fi doon jàngale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 waaye Jaxfar ibnu Muhammad ku bari woon kaf la ak muuñ ak ree waaye bu déggee tur yonent bi ci alxuraan wala keneen tudd ko képp du képp sax waaye baat boobu fa la yem Muhammad moom it dangay gis mu ñëkkal ka euh, xarkanam bi bañ na ko sax daawut wax ab xadis te demul waaj ba noppi jàpp jàpp soog a ñëw nettali xadis bi